alors euh, Moussa Tine yéen Macky Sall dafa convoqué dialogue ngeen dem wuyu ji ci dialogue bi ci jaloog boobu jur euh, une modification du code électoral ñu xoolaat mbir mi ngeen dégg déggoowaat sur un euh, certain nombre de de euh, ba tax yéen tey ngeen bokk nekk candidat bay naan da ngeen di battre campagne waa Yewwi bloc ñoom ñëpp ñu def bloc dal seen kaw waru leen woon dem ci dialogue bi da ngeen trahir euh, la charte de Yewwi dugg na fii génn fii euh, ba sax faf ñu ne dañ leen génn Yewwi yéen ngeen taxaw assumer Barthélémy Dias Khalifa Sall ne euh, réew démocratie dañ ciy jalog Sénégalais yu bari tamit d'accord ci ak yéen réew dañ ciy dialogue yi réew dañ ko d'ailleurs sa parti mu ngi tudd AD Pencoo donc réew dañ koy péncoo euh, di ko di ko di ko waxtaane tey mu am ñoo xam mu am tey des changements en cours euh, ñuy wax waxu un second un autre dialogue euh, Alioune Tine bi Goudiaby pas nekk di dox ay médiation diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall mais on est étonné de voir Khalifa en parler et puis sur un ton critique la la lan moo leen déranger euh, sur ce qui se passe actuellement. J'aime bien ton petit sourire de coin là. <laughs> Mais attends, non, non, non, non, non, non, non, Man, je considère que lu mën na am ci am réew ay ni yu bëri xam nga espace démocratique espace de confrontation la espace démocratique boo mën di jël eh, espace de confrontation day bu amul confrontation amatul démocratie li ay réew di daje di mënante mooy la capacité à imaginer ay moyens pacifiques ñuy dépasser les différends et confrontations yi li ay réew di ëpp di euh, di ëppalante mooy bu ab coow amee ñu am euh, ay moyens pacifiques yu ñuy régler yu ñuy régler coow yi am ci biir ci euh, biir nit donc man que pouvoir bi ak waa Yewwi ak Ousmane Sonko ak waa Pastef di dialoguer ça ne me gêne pas du tout je pense même que dañoo war a dialoguer je pense que dañoo war a waxtaan pour génn situation bii. mais lan mooy problème bi. non problème bi mooy li Khalifa di wax mooy mais yaa xayti bu ngeen ñu toppee ne yéen da ngeen doon dialoguer defal ñu bashing ci biir euh, euh, réseaux sociaux yi tuddee ñu tur bu ne waaye ëllëg tey bu ngeen demee nag ba war a dialoguer da ngeen di wax ne ñun kat dañoo juumoon def seen mea culpa bu ñu jógoon ba xalifa ne dañuy dialogue am na Amadou Ba nee na ñoom waxuñu waxu dialogue nañ dem élection pas de report non je suis d'accord mais mais mais mais gars yi nee nañ nag actuellement dafa xar ñaar pro report anti report pro dialogue anti dialogue c'est-à-dire lu mën a am rek hmm. mooy bu dee daal en tout cas ñu ngi dialogué la première chose bu ñu war a def mooy ne ah ñun kat dañoo juumoon parce que s'il faut comprendre qu'il faut dialoguer après soixante-dix mois il y un problème après 70 mois. mois ñu doog a xam ne. ah 70 mois sa référence lan la. ah li fi dee yëpp si diggante bi. xeetu ah d' accord 2021 ah oui ba léegi il faut c' est en ce moment là qu' il faut comprendre que maintenant il faut dire c' est que il y a un sérieux problème. le même d'État c' est quand même quelqu'un qui a une capacité à anticiper sur les événements xam ne lii fii la jëm lii fii la jëm dafay jëm gis nga même xeex en politique. ce que tu cherches toujours mooy ñi jàngale leadership yëpp xam nañ ko bés boo demee ba créer un rapport de force favorable rek. tu cherches à imposer la négociation parce que rapport de force favorable benn instant dafay tournoir doo nangu doo xaar ba keneen ki am rapport de force favorable ngay doog a négocier donc tout ñiy jàngale leadership yëpp ils savent que c'est comme euh, de la politique il y a un moment pour partager il y a un moment pour discuter y a un moment pour kii y a un moment pour aller à la confrontation et y a un moment après pour pour euh, pour négocier donc on ne peut pas continuer à dire Ablaye Wade lan la dajoon ci nguuru ak nguuru parti social. à chaque fois qu'il fallait discuter il y il est allé autour de la table rappelez-vous tey sax li gën a tuddal Sénégal fii tout avec un grand T Abdoulaye l la la table ronde je règle tous les problèmes tout avec un grand T. il est allé discuter des premiers gouvernements de majorité présidentielle mu toog génnaat est-ce que ça a fait que mu génn PS mu nekk PS est-ce a fait a fait bu ne mu def la non il a négocié à chaque fois qu'il le fallait bu mu yegsee il a fait une rupture totale avec ce que les les du PDS Euh, euh, euh, faisaient les gens du PS faisaient mu da appliquer ça gouvernance changer ay nitam ay nit indi pratique yu bees indi investissement indi façon kii yu bees c'est ça en fait faire faire de la politique est-ce que dafa tax mu dem mu jébbalu si Abdou Diouf dafa tax mu dem nekk pro est-ce que dafa tax mu le PS trompe il est resté non seulement considéré comme le plus grand leader politique bi am fii ci le premier chef de l'opposition légale bi bi am fii ñu koy chanter Macky Sall ñëw lan lay changé. donc da nga jàpp ne bu dee dialogue am na dañ ko war a assumer. waruñ ci am perte mais il faut assumer qu'il y a un dialogue et il faut même assumer que dañoo def erreur et ça je l'ai dit ici Yewwi Askan Wi dafa def erreur wu bañ a dem dialogue y a même quelque chose qu'on ne dit pas parce que je veux pas le dire. parce que benn instant man je veux pas renforcer. ma oui, mais faut le dire mais gis la convocation du dialogue je pense que Macky Sall nous avait lancé un message. Macky Sall avait convoqué le dialogue la veille du délibéré du procès de Ousmane Sonko. daa ban ban ban ban kii. <laughs> ban procès dafa benn bi le premier la woon mu convoqué dialogue bi le 29 mu am la xew mu yóbbu ko le 30. regardez encore les les, euh, euh les les les dates donc je pense même qu'il voulait nous lancer un message mais c'est pas le problème le problème mooy quoi mooy nekk nañu si ab situation bu terrible bu ñu dund bu metti yow. yaa ngi ànd ak Khalifa Sall mu mu mu mu ngeen def campagne moom mu xam ne moom mënul nekk candidat mu jiital la yow ne la jiitul nga nga tiré suñu liste jël ay nitam teg ci sa ginnaaw ngeen ànd defandoo campagne buy def campagne du bëgg sax fës bàyyi na nga fës assumer campagne ba mu jeex ñu def ba campagne bi jeex moom mënul nekk candidat appareil bu mag moo topp si ginnaaw ay député nekk si ay maire nekk si depuis 2014 ñooñu topp si ginnaaw mënul dem campagne ñu xëy suba ñu ne dañuy woote dialogue ay kilifa dox ci ba ko am mais nga xëy suba teel ne ko mais man mii yow kat waroo dem waroo dem jaloo da nga wax kon ne di xeex ak man ci mbedd bi pour ñu bañ ma condamné parce que man suñ ma condamné du ma dem du ma mën a nekk candidat c'est ça le problème les gens de taxaw on dit oui mais écoutez on veut bien xeex nañu ànd nañ ak yow jox la lu ñu la war a jox mais aujourd'hui nous si on a une dem dialogue où on peut poser problème mais on va quand aller dañuy dem bokk si biir ci biir dialogue bi mais loolu bu ñu ko waxee Ousmane Sonko ne nii ne li man lii laa bëgg xalifa Sall ne man lii laa bëgg ñun ñu nekk biir yeewu askan bi lan moo war nekk suñu tànk dox ci seen diggante. def médiation médiation. on n'a jamais fait la médiation. ñii dem ne tafu nañu ne si Ousmane Sonko. ne nañu dem du ñuy dem kay yow rek yaa ànd ak Khalifa. ñëpp tafu ñëw dem tafu si Ousmane Sonko. mais bu ñu jógoon dem ne mais ak yéen yéen fii ñetti parti yi ñu mag la ñu am yow la ak diw ak pur la ñuy gëmloo Sénégalais ba ñu toll fii ëpp naa ñaaw gars yi ñu toog ñu waxtaan waxtaan leen ngeen def toog leen si table ngeen waxtaan parce que ce qui s'est passé mooy Khalifa a une une déclaration gars yi rocc déclaration si contexte bi commencé koo jaay ci mbedd bi Ousmane Sonko jógee tourné ñëw taxaw ci dëkk bi na ñuy dem dialogue il le font contre moi ñi ay traître lañu tudde ni Judas tudde ni nële tudde ni nële alors que man je considère que en ce moment là simple coup de fil téléphone mais grand xalifa yow yaa ngi dem dialogue mais boo demee dialogue damay am kii mais euh, euh, lan mooy solution bi man je voudrais vraiment que ñu am une position harmonisée au niveau de Yewwi Askan Wi ñu toog waxtaanandoo si wax naa la fii ne la man li ma jàppoon ne mooy woon la bonne solution pour Yewwi Askan Wi période boobu mooy nañu daje Yewwi Askan Wi ñëpp toog ñu Yewwi day dem dialogue parce que ce que les gens ne savent pas c'est dañuy yàkkaar ne xalifa Sall moo jot invitation ak Moussa Tine ñi fa nekk yëpp ko nekk da ngaa jot invitation individuelle. ils ñu jox Yewwi Askan Wi invitation en tant que entité politique c'est ça qui s'est passé xëy ñu bu fekkante woon Macky Sall dafa xëy woo xalifa Sall te invité wul Pastef man a Khalifa Sall dafa trahir Pastef man d'accord ci. mais ñëpp la invité invité waale Yewwi Askan Wi en tant que entité mais bu ñu dajale woon foofu bu ñu ñëwoon ñun ñëpp ñu dajale ñu ne waa léegi comme affaire yi demee na nii kaay dañuy toog ñu demandoo c'est Yewwi qui va mais yow Khalifa yow doo dem yow Ousmane Sonko doo dem yéen ñaa ñëpp fi ngeen di toog en prend ñetti leader ñooy dem taxaw na si kanamu Macky Sall ñetti leader bu ñu demee taxaw Macky Sall ne ko première chose il faut libérer les deuxième chose on voit la révision de 29 de 30 et de et de troisième chose on voit telle chose ba mu jeex bu Macky Sall waxee ñu ne ko ça c'est les conditions de Yewwi Askan Wi et c'est pas des conditions négociables bu boobaa on aurait pu à la fois le problème de Khalifa et le problème de de Ousmane Sonko et Khalifa Sall bu mu demee ci biir dialogue bi li ma la wax ni moom la posé quand Khalifa Sall posé le problème de l'article 29 bi mais donc ñun bu ñu demoon en tant que suñu doole yeeyu askan bi ñu dem dugg foofu ci biir salle bi avec les cinquante six députés yi fa nekkoon ñu dugg fa bu boobaa ce que nous avons défendu Saliou Sarr défendre ko Omar Cissé ko am kii défendre ko Pape Diop bu ñu nekkoon doole yeeyu askan wi nañu peser plus que ça effectivement. sur le dialogue alors euh, Alioune Tine ak Atepa la ñu gis ñuy euh, ñu def ay déclarations. Euh, confirmer même des entrevues euh, avec le chef de l'État ce qui est bizarre c'est que il reste un peu vague euh, sur les entretiens ak la posture de de Ousmane Sonko mais li leer ba leer mooy Ousmane Sonko et Macky Sall se se se alors il y a eu une libération de détenus en cascade et déclaration Khalifa Sall bi intervenir ci loolu mu mel ni. Euh, euh, y a eu une confusion. les non, gens non. se mis à dire dafa mel ni la libération des détenus. non non non non c'est-à-dire aussi xam nga bon y xam Khalifa euh, waxuma sax homme politique mais humainement tu sais que c'est pas quelqu'un kuy génn ay dañuy toog si kaso. combien de fois il a fait des déclarations pour demander la libération des kii y compris au dialogue national c'est pas le problème le problème c'est que il a dit quelque chose nit ñi jël wax ji modifié ko il dit aux gens lii ñu xëy nii nit ñi forcément am na lu nekk ci suuf waxtaan am na je soupçonne am na waxtaan suuf c'est pas qu'il dit am na waxtaan bu nekk ci suuf assumer qu'il y a biir suuf et faites-le en toute transparence man damay dem dialogue damaa wax nit ñi damay dem dialogue sol sama donc moom waxtaan bi bi ñuy nëbb loolu lay wax di ko bañ a assumer loolu moo ko gêné et non la libération des des il est d'accord qu'on libère il l'a dit il l'a porté il l'a tué boo demee sax dans la déclaration bu mu def en français lu mu njëkk m'en réjouis effectivement il faut s'en réjouir c'est-à-dire que euh, il, il dit d'ailleurs Khalifa il dit dans son programme politique il dit Khalifa Sall président dootuñu jàppati nit fii ci manifestation politique il dit Khalifa Sall président de la République dootuñu fi rey nit ci ab manifestation euh, euh, politique parce que je suis un euh, euh, partisan de la pacification de l'espace politique Je pense qu'il nous faut construire aujourd'hui une démocratie apaisée. Il le dit et, dans son, et Donc ce pas cette personne-là qui reviendra dire à des pourquoi on a libéré telle ou telle autre personne. Il n'est pas contre la libération des gens. Mais il dit, am na lu nekk ci suuf dañu ne waxtaan ngeen ba ñu libérer ay nit man ba may dem dialogue dama ko def ñëpp yëpp ko fàng laa def sama basin laa sol wàcc buntu palais euh, ñëw dugg ci biir toog nuyonte naa ak nit ñi defante nañu nii waxante nañu ma wax fa sama soxla mu ñëw mu ñëw jël il considère que dans l' espace démocratique s'il faut négocier des choses sur la vie publique nationale dañ ko war wax nit ñi diw ak diw ak diw euh, euh, yëpp ko bon naa effectivement on est dans une période de de pré-campagne forcément il va y avoir de la manipulation de bonne guerre